في كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي النعم والمزيد ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi bokk di sant borom bi subhanahu wa taala ndax moom rek moo yeyoog cant moom mi nga xam ne mooy ki dëgg te xam ñu sàkk mu musal ñu ci seytaane mi nga xam ni li ko itteel mooy gàllankoor ñu jëm ci borom bi subhanahu wa taala ñu ngi koy sant moom yàlla ndax xeeti cant yépp moo ko jagoo moom mi nga xam ne moo ñu may ñu mën a toog ci jotaay bi ngir bokk ndoo nafar lenn ci bind yi nga xam ne moom lañu suñu diine jàngal ñu julli ci sangu-sang yi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moom nga xam ne yàlla daf ko yónni muy yërmande ñeel mbindeef yépp kàddoom yu rëy yi mu wax te ñu am yéene tënk ci sunu waxtaanu tey muy ne yàlla daf ma yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi kon loolu suñu ko déggee rek am na lu ñuy joxañ te mooy kàddu yi nga xam ni ak yëg-yëg bi ñu war a am ci ñi jikko amee solo ndax ku xool liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci kaw suuf fi mu tàmbalee ba fi mu yem ak su amul woon tey fan la nit ñi jëm ak li tax boroomam yónni ko ci biir askan yow nga xam ne ay arab lañ mu ñëw yëkkati kàddu ne yàlla daf ma yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi kon loolu wane ne ne jikko lu ama am solo la lu rëy rëy la waaye mën nañu wax ne jikko moom mooy dund comme jikko mooy dund nag ndax ci jikko yu baax yi la dund gi di amee njariñ waaye ci jikko yu safaanu yi tamit ci lañuy demee ba dund gi dootul amati benn njariñ moo tax ñu gis ne ci sunu jotaay yi incha allah am nañu yéene bokkandoog yéen nafar yii di ay jikko ak teggin yi nekk ci diine ngir du ñàkk muy man muy kenn ku nekk ci ku mën a dégg kàddu gi ñu jariñu ci loo xam ne dina tax sunu àdduna baax njëkk waaye ëllëg tamit sunu alaxira baax ndax ci jikko ju rafet rek ci la ñaar yooyu di mën a baaxee mu mel ni li ñu am yéene ci jotaay bu njëkk bi mooy waxtaane xamle lan mooy jikko wax tamit ni mu nekkee lu manta ñàkk ci biir société yi nit ñiy dund ndax ku wax jikko rek nit ngay gën a xalaat waaye solo gi mu am ci biir nit ñi loolu lu jara leeral la bu ñu ñëwee pour waxtaane jikko mooy lan boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ci wàllu luga dañuy jàngale nga xool ci ibnu manzour lisaanul arab da ngay dégg ñu wax ne alxuluq fi luga addiin wa taba wa sijiya wa huwa yutlaqu ala sifati al insan albatina allati yumkinu wasfuha bilxusni walqubxi ka sidqi wal amaana walxayaai wa naxwiha ñu ne jikko ci langage mooy mën nañ wax diine ndax naka jekk baatu diine su jógee rek mooy lu jógee ko ci yàlla subhanahu wa taala kon diine ak melo bu nit di mel jikko jooju muy jëflante wala di ko waxee wala di ko doxee nga xam ne day mel ni luñ ko mooñaale mënu tàqalikook moom mu ne loolu mën nañ wax ne mooy jikko kon mën nañ koo màndargaal ci bépp melokaan boo xam ne nit daf koy mel moo xam yu nëbbu la yow mënuloo tëb tëb rek gis ko waaye nag du tere mën nañ wax ne ah lii day baax na wala lii bon na mu mel ni boo gisee nit ku dëggu wala ku wóor wala ku am kersa da ngay daal di ne ah diw day jikkoom rafet na ndax dafa dëggu dafa wóor dafa am kersa comme bu nekkoon safaan ba tam dul wax dëgg wóorul amul kersa da ngay gis tamit jikko yu ñaaw yooyu day tax ñu ne diw ku ñaaw jikko la ñu wax ne kon ñoom loolu lañu tënkee jikko ak niñ ko déggee ci làkku ñu arab waaye bu ñu demee ci istilaax shar'i mooy li nga xam ne diine moom mu lay tekkil jikko moom la koy tekkee dañu wax ne jikko fil istilaax al xulqu fil istilaax sifatun mustaqirra fi nafs zaatu athaarin fi suluki mahmuda aw mazmuma mu ne jikko mooy melokaan boo xam ne dafa sax ci bakkanu nit ci biir nit waaye mu am jeexital yu muy wone ci jëfam mën na baax nag mën na bon kon ci sharia da ngay gis ne bu ne jikko moom day dëxëñaale moo xam baax na wala bon na waaye li am solo mooy lu nekk ci biir nit ki la waaye day feeñ ci su waxee wala mu jëf jub loola day feeñ ba ñu mën koo yëg mu ne moo tax dana ñuy wax jikko te fekk jëf la wala lu nit di yëngatu ñu mën ne ah jëfam ji baax na kon jikko ju baax la comme su fekkee ne nit ku dëggu la bu waxee wax ju dëggu bu jëfee jëf lu dëggu ñu ne ah kii jikko ju rafet la am su fekkee ne nag nit day wax safaan lu mel ni jikko ju ñàkk wax dëgg ñu ne ah kii kat jikkoom dafa ñaaw ndax du wax dëgg ñu waxaat ba tey nii mën nañ ko tënkaat ci beneen tënkin ñu ne jikko sifaatun sulukiya idaariya xasana aw qabiha melokaan yoo xam ni dafay nekk ci nit yu mu moo xam daf ko neex mu mel ko wala léeg-léeg sax nag mën na koo bañ a neex waaye mën na baax mën na bon kon loolu ci tënk xañ na mën nañu leeralal ci jikko waaye bu ñu duggee ci biir incha allah ci waxtaan wi danañu gën a xam li tax ñu andi jikko ak solo bi mu am ci sunu dund kon tomb biñ ciy teg muy daruratul axlaaq lil mujtamaat al insaniya muy ni jikko nekkee lu mënula ñàkk nécessité la ci biir société doomu aadama xam nga nag yàlla ni mu bindee doomu aadama yi noonu la bindee mala yi waaye ni ñuy toppee doomu aadama yi ci seen jikko ak seen jëflante duñ ko toppee mala yi loolu nag xam naa ne xam ngeen xel li tax mooy xel mi nga xam ne moom la yàlla may nit te mayu ko mala ñu wax ni kon jikko yenn la ci fondement yu essentiel yu dëgëri yu am solo yi nga xam ne ci biir dundinu nit mooy liy tënk nit ki ba mu mën a orienté wu jublu ci loo xam ne day tax mu jëm ci lu baax waaye moo koy may tamit mu def effort wu mën a yéege boppam ci martaba yu kawe yi nga xam ne ci la nit di mati ndax doomu aadama yàlla daf ko bind ci diggante ñaar muy malaayika yi ak mala yi su defee effort ci jikkoom daf koy may mu yegg ci la yoon borom bi subhanahu wa taala wax ni laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim doomu aadama dañ ko sàkk ci gën gaa rafetu bindin ñu ne loolu xam ne jëmm la ñu ne aha kañ jëmm la ndax moo feeñ waaye ndekete jëmm jooju dafa am lu mu denc ci biiram mooy jikko kon yàlla bind na doomu aadama ci melokaan ci forme boo xam ne bu taaru la moo leen mbindeef yi yàlla sàkk day gis doomu aadama su taxawee kenn dootul xool ñeneen mu jox ko xel ba mu man di solu di mel melokaan boo xam ne dafa mujj mal mbindeef yëpp topp ci ginnaawam jinne yi nga xam ne doomu aadama yi léegi-léegi sax am ci ñu sàggan bañ leen di noggatu bañ foog ne dañ leen a war a ragal ñoom dañu ñee doomu aadama ci na ko yàlla bindee ak ni mu mel am na sax ñuy wax ne bokk na li tax jinne di solu nit mooy toujours dafa dafa dafa sopp jëmmi doomu aadama ndax melokaan bi mu mel taar bi ci yàlla def waaye taaru bitti boobu li muy niñ koy mën a misaalee ni dafa nekk rek benn image photo waaye liy dëgg liy rafet liy tax taar boobu feeñ dëkk mooy jikko ja su fa jikko nekkul taar boobu day mujj sax nekk leneen doo xam ne mën na sax jur yàqute comme ni nga xamee ne tey nit ki day dem ba jàpp ne taar boobu sax fésal ko ak génne ko ci lay ci lay rafetee foofu nag kon valeur wu jikko bu rafet ba nekkoon ca biir nam ko néewalee doole nasaxal ko day tax taaru bitti ba sax dootul amati te gis góor gu génn génne ci yaramam lu warul feeñ warul woon feeñ même bu ko jàppee ci boppam wala ci civilisation ba muy dund ne taar la doomu aadama yi am xel dañ koy xool duñ yëg ci moom taar waaye dañ yëg ne kii daal delloo na boppam comme ci bàyyi ma jigéen nag moom rawatina moom mi nga xam ne moo ëpple ay awra yu mu war a nëbb moo ëpp lu mu war a denc da ngay gis ne fi mu demee ba jàpp ne moom bind bi ko yàlla bind dafa taar ba war na koo fisal xeeb jikkoy biir yooyu nga xam ne moom la ko yàlla moo ñaale woon nga xam ne mooy wane taaram ci bitti mu futteeku loolu dafa tax jikkooy ju ñaawam maanaam jikkooy ju ñaaw jooju ci biir daal di fés ba ñaawal taaru bitteem boobu ndax ku ñeeku na ba mel ni bàyyi may ndax la ko yàlla joxoon muy libaasan yu waari saw aatikum muy yére boo xam ne mooy tax nga nëbb yow la la ñaaw yàlla nee na li rafet na feeñ yow nga dem ba jàpp ne sax lépp a war a feeñ fan nga ñaawal sa bopp moo tax bari na ñuy génn foog ne dañoo rafet dañu mujj ñaaw ndax teguwuñu ci taar bu naturel bi nga xam ne moom la leen yàlla taaral ñu wax ne kon jikkoom mooy yëkkati nit mooy tax mu mën a tegu ju xoccu nag ci mbir yi nga xam ne moo kowe teg bëtam fu sori waaye yegg tamit ci yë ya ñu gën a baaxal ya ñu gën a jox solo ci jëf yi muy njëkkante pour yegg fa loolu buñ ko mënee dégg rek mooy ni suñu société yi dundee tey nga xam ne jikko yi dañuy suufe suufe ba jàpp nañ ne ki ñuy tudde star ki nga xam ne moom ñuy tuddee vedette mooy ki nga xam ne dafa nekk ca musique ba ba yegg ci foo xam ne dañ koy joxañ wala mu nekk sport ba wala mu nekk ci leneen ak leneen seetal lu la neex waaye boo ko toppee day fekk ne dëppoowu la gërëmu boromam kon kañ bu boobaa taar dootul amati foofa royuwaay dootul amati foofa ndek kon jikko ju rafet mooy mën a tax kan la ñuy joxañ mooy ki nga xam ne day yëg ne ndekete pour ma màgg pour ma am solo pour ma am daraja ndekk dama war a yegg ci ñi yàlla di xool ci kaw suuf ne ñii day ñoo taxoon may bind doomu aadama pour ma def ko xalifa fil ard mu wuutuma ci kaw suuf fa yàlla subhanahu wa taala ba muy woo malaayika yi di leen wax ne dafa nar a bind doomu aadama woowu leen woon pour ñu jox ko xalaat bu buñ ci d'accordul mu mu bàyyi déedéet waaye daf ne woon inni jaa'ilun fil ardi xalifa malaayika yi tamit sañ joxe seen xalaat ndax loolu feeñal na tey ñi woote woo démocratie yëpp di jéem a wan nit ñi ne yoon wii mooy yoonu maandute yàlla moo ko jëkk a jàngale ndax sañoon na def li muy def te du woo kenn du laaj kenn waaye malaayika yi tamit seen yëg-yëgu biir ak seen maandute la ñu yëg mooy ñoom daal ni ñu seetlee ni ñu baaxee di topp yàlla ñoom jikko yi ne ci ñoom nekkul ci kii ñu nar a bind moo tax ñu ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu am nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ndax da ngay def ci kaw suuf koo xam ne dafay tuur deret di yàq ci kaw suuf te ñun ñuy sàbbaal ku ñu toll duñu la moy lu leen borom bi tegal inni aalamu ma la taalamuun man xam naa loo xam ne xamu leen ko dëgg la moom borom bi subhana taala xam ne ne doomu aadama yi mbaax gi nekk ci seen biir suñ ko wàccee kenn du leen dab kon diggante bi doomu aadama nekk ci diggante malaaka ak liggéey di mala day tax su yëgee valeur am day yéeg di yéeg di yéeg ba dominer malaayka yi ndax xeex naa ak bakkan boobu ak bànneex boobu ba egg ci niveau boobu bu mag a mag su sàgganee nag day dem ci mala moo tax tey nga gis doomu aadama yi di futteeku di daw di jëf jëfinu mala ci lépp bànneex yi ñuy yëg sax ci lekk ak naan dañ koy defee comme mala amatul lu ñuy contrôler suñ ko soxlaa rek dañ koy def fu nekk dañ fay lekk fu nekk dañ fay naane lu nekk dañ koy lekkee dañuy dem sax ba lekk lu nekk xoolatuñu sax lu leen di amal njariñ nga gis kuñ ne day lekk yàppu mbaam yàlla nañ ci yàlla musal kuy naan sàngara kuy dorogewu kuy dem bay def yoo xam ne da koy leer ne amalu ko njariñ waaye bakkanam moo ko jiital kon da ngay gis ne shahwa boobu nekkoon ci ma mala yi te dominer leen dem na ba doomu aadama côté boobu la gën a yi moom la gën a dundal moo tax mu mel ni mala moo tax yàlla subhanahu wa taala ne summa radadnaahu asfala saafiliin mu mujj wàcc nag wàccee boppam suufe toroxal boppam ba li gën a suufe mu dem ca te mooy yiis nag bàyyi ma ndax bàyyi ma moom amul xel te doomu aadama am na xel bokk na ci li lay wan ne mënula ñàkk moom jikko ci biir société yi mooy moo ñuy mën a garantir ñun doomu aadama yi ni ñuy dundee ñu mën a am kóolute waaye ñu mën a am li nga xam ne mooy ak dal ci sunu biir kenn ku ne mën a jël li nga xam ne yaa ko moom waaye mën a joxe li la war li ñu bokk ñu xool nan lañ ciy jàppalante bokk yi muy lu am solo ñaata la ñuy dégg ay revendication ci société yëpp nag foo dem bañ nañ ko sax ba ne képp koo xam ne da ngay daan sa doole di liggéey am nga àqu ci revendiquer waaye am nga àq sax nag ci toog sax banque say loxo wala def ko ci yeneeni anam comme ni ñu koy waxee grève wala leneen ngir jot ca waaye ndekete su jikko rafetee ñett yi moom doomu aadama waru cee neenal benn wala di yëkkati bi ci des di bàyyi morom te mooy lan bala ngaay laaj liñ la war lool yëgal ci sa bopp ne am na lu ma war waa li la war ndax yaa ngi ci nga xool te nag balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama moo la gën a xam boppam te yàlla mi ko bind moo ko wax kon yow boo xoolee defaat autocritique ci sa bopp danga naan ah man li ma war a def est-ce que man naa nga xam su matee xam nga su matul xam nga sa digganteeg yàlla mi nga xam ne moom wa kafa bina xaasibin yàlla moom ay régleem tolla wut ak bu doomu aadama kenn dàqu koo réglé kon soo defee li la war ba yëg ne li la war def ko foofa ngay sañee laaj foofa nag ngay sañee laaj liñ la waral li nga xam ne moom dañ la koo war a jox kon def li la war waaye sàkku say àq loolu nag ci diggante ñaar yooyu la kon bul neenal sa wareef di yóotu luñ la ameel bu boobaa xel du ko nangu mais am na loo xam ne nag dañ ci yem ni nga ko war lool sa moroom nu mu la ko war lool moom nga ko ko waral defal kon bu boobaa dañ ciy jàppalante li ñu bokk ñun ñëpp dañ ciy jàppalante pour mu mën a dem jikko moo ñuy may lool ñu wax ne tamit jikko ju rafet mooy tax lépp luy jikko ju ñaaw ñu xeeb ko ci société bi doya daal ko sib ko di bañ ku koy def ku xam li ci wax lu dul dëgg ku xam li ci tricher ku xam li ci wor nga xam ne ki ko bindoo ki ko mel ci société bi day dem ba dañ koy xeeb léeg-léeg nga dégg ñuy wax ci côté yu baree bari alal du ñu dénk nit mu lekk ko ak yeneeni mbir yoo xam ne nit da koy jikko woo ba ci ñaan yi nga xam ne sax dañu ànd ci biir néegu sëy muy benn société bu ndaw boobu di biir kër gi jikko yu ñaaw yooyu su fa nekkee rek dañu gis lu yàqulu lu baree bari loo xam ne ci lay sosoo ndax dëggu bi nga xam ne moo war a nekk si ñaar ñiy ànd muy borom kër gi ak soxnaam soxna si ak borom kër gi njaboot gi lépp lu nekk ci biir kaat boobu su fa dëgg rocceekoo rek dootoo gisati dëgg-dëgg dundin bu rafet ci biir kër googu tricher wane lu nekkul ci yow waaye wor goo xam ne li ngay jëflanteeg nit ñi am na leneen loo xam ne yow moom nga naraat ginnaaw loolu ñu jàpp li ci kaw fekk am na leneen lu nekk ci suuf ànd ak loolu yépp nit ñi ci seen wàllu bopp day dem ba kenn ku nekk da ngay ragal sa moroom da ngay tiit sax ci jëflanteeg moom ak ànd ak moom loolu mooy tax melokaan yi nekk ci diggante nit ñi day mujj mel ni dafay daggatoo relation dootul am jàppante dootul am bëggante dootul am maanaam solidarité sax kenn ndax kenn ku ne dootoo ñemeeti sa moroom jikko ju rafet mooy tax ñu ñemante ñu miinante waaye jikko ju ñaaw day tax ñu ragalante waaye ñu sorante ba nga xam ne kenn dootul wóolooti moroomam kenn dootul gëmati moroomam loolu nag yaakaar naa ni kuy dund tey ci suñu société yi dafay fës dafay bari lool nga xam ni base bi ci diine mooy koo gis ku nekk di jullit wóolu ko na nga ko wóolu xam ne jullit la te jullit jikko ju rafet moom moom la baaxoo nga nekk ak moom ci loolu jiital confiance boobu ak xel mu dal moomu ca digganteeg moom ba baa ngay gis mu jëf lu safaanoog loolu mais tey loolu yow boo ko melee ngay mel ni nit ku matadi dañaa moom kat ku ko gis wóolu la te dëkk bi léegi kenn wóoratul te ñu koy wax ñooy jullit ñi bu boobaa lan lay jur kenn dootul wóolooti kenn kon koo gis da nga koy ñàkk a wóolu te loolu warul woon da nga war koo gis wóolu ko ba baa mu lay won lu wóorati léegi nag koo gis dafa mel da nga ko wala ñàkk a wóolu ba baa ngay gis lu tax nga wóolu ko léegi-léegi sax mu won la wóor nga ne ah loolu de dëggugul xam naan dafay soog a dafay am lu mu làq ci ginnaaw rek bu amee li mu bëgg doog a wone boppam kon yooyu yëpp am na lu muy feeñal mu mel ni kon bokk na ci liy wone ni mu jikko ni mu nekkee lu ama am solo ci dundinu société bi mooy il faut ñu joxe yenn exemple ci ne ngëneel yi nekk ci jikko yu rafet lu mel ni dëggu nga dëggu dafa nekk loo xam ne tey bu amul woon ci société yi xam-xam sax duñ ko mën a jëriñoo ndax bari na ci xam-xam yi daf dañu ñëw rek juddu fekk ko fi ñu koy toxal borom xam-xam boo xam ne ay siècle siècle kenn xa waxatul mënuñ la wan sax fu fu fu bàmmeelam ne waaye nga nangu la ñu bind ne lañ fi bàyyi ne lii kat moo ko bind nii la ko jaarale ci mboolem xeeti xam-xam nga nangu ko mu dem ba ci jàngalekat bi nga xam ne dafa nekk ci biir classe bi du jox élève bi ay leçon di ko jox ay matière yoo xam ne référence yam koy jox xamul sax dajewut ak ñoom waaye wéru ak dëggu toxal ba maanaam confiance yu yëg ne lii lu dëggu la tax na dañ koy ñeme loolu day dem ba ci côté yëpp ngay xool ci wàllu santé docteur bi nga xam ne dafa dem ba ñem amee fitu xotti biiru nit ngir ne da koy faj lu tax dafa wóolu xam-xam biñ ko jox jàngal ko gëm na dëggu xam-xam boobu kon ndeke ci dëggu ci la nit ñi di taxaw pour mën a avancer ndax bu doon lu ñëw rek ñu am ci sikki sàkk ñu am ci duut ñu am nu ñu koy xalaatee kon dara du def loolu mooy nekk ci biir kër gi ci diggante ki nga xam ne mooy borom kër ak soxnaam ba tey da ciy feeñ ndax su fekkee ne lépp lu war a nekk ci biir kër gi ñaar ñi ko séq dëgg dafay nekk ci seen cosaan yoo xam ne ci la ñuy taxaw day tax kenn ku ci nekk la la sa morom di jox loolu da nga koy mën a téye waaye doom ji tamit ci loolu lay nàmpatal ci lay lay màgg ci lay suuxatu ba dëgg googu dafay sax ci société bi kër googu di société bu ndaw bi loolu mooy law dem ba ci société bu mag bi ñu wax ni kon su duggutoo nag jikko bu mel ni kóolute nga xam ne da ngay am confiance ci nit ki am yaakaar ci moom wala kàddu yam la wax wala jëflante ba ngeen di jëflante da ngay xam ne kii kat doy na la ci doyloo googu nit ku nekk di war a mën a doyloo sa moroom ndax la nga gis ci moom ci ay melokaan ak ay jikko su amul woon ci sotti bi nga xam ne koo gis danga koy ragal danga koy moytu da ngay daw danay mujj kon ju dund ci kaw suuf ba mel ni sax jën yi ci biir géej xam ne dañuy dañuy mëddante dañuy lekkante ndax wóolante wuñ tey ñu ngi dund ci société yu mel noonu nit ñi ñu ngi tëj nit ñi ñu ngi uti gardien nit ñi ñu ngi ut ay garde corps nit ñi ñu ngi ut yu baree bari yoo xam ne kóolute amatul kenn wóolatul kenn ndax li fi nekk ci ay jikko ak yàqu-yàqu mu mel ni kon su société yi muccul ba am jikko yu rafet day tax dal du mën a am jikko ju rafet tamit du mën a nekk loo xam ne day wesaaroo loolu nag ci mboolem jikko yi bu ñu ko doon tànn benn par benn noonu lay feeñee ci dundin yi waaye xaj na dina am solo ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom moom la ñu mën a sukkandiku rek pour lépp leer muy diine diine fan la teg jikko ak fan la ko yeggle loolu lu ama am solo la suñ ko xamee rek day tax ah ku nasaxoon ku sàgganoon ci say jikko nga góorgóorlu defaat effort pour jikko yooyu mën a nekk loo xam ne lu lu lu jaar yoon lay doon kon incha allah dinañu waxtaane ci place bi diine islam teg jikko liñ ci nar a njëkk a waxtaane mooy irtibaatul xuluq bil iman quwatan wa dufa kon tomb bii di manzilatul axlaq fil islam muy palaasu jikko ci diine liñ ciy njëkk a wax mooy ni diine ñëwee takkale takke lii di jikko ak ngëm ngëm ngëm moom bu doon tabax la ñu ne diine ngëm mooy fondement bi su dëgëree lépp dafay dëgër dafay attan lépp waaye su nasaxee su faible su bonee mënoo ci teg dara bam baax jikko diine dafa ñëw boole ko ngëm ni ñaar lañ benn mënula dem bàyyi moroom ma su jikko baaxee ngëm baax su jikko dëgëree ngëm dëgër su jikko bonee ngëm gi baaxul bon na su ji su nasaxee tamit jikko ji bu nasaxee ngëm gi nasax na loolu mbokk yi doy na ci benn firnde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis bi nga xam ne Buxaari mu ngi koy nettali ak al imam muslim radiallahu anhuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al imanu bid'un wa sab'un aw arbaa wa sittun aw bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha an at-tariq wal haya'u min al iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ngëm dafa nekk di ay pàcc bu doon immeuble bi ñu ne ay néegi néeg la mu ne yegg na sax ci juróom-ñaar fukk ñu ne nee na juróom benn fukk ak lu topp ci ay pàcc ay xaaj mu ne bi ci kaw na gën a kawe kon immeuble bi nga xam ne moo nekk ca kaw mooy laa ilaha illa allah muy kàddu tawxid bi nit ki génnee ci làmmiñam te bala muy génn ci làmmiñ fekk na xol moo ko njëkk a dëggal mu ne waaye bi ci gën a suufe mooy nit fekk lu mën a lor nit ci yoon mu toxal ko mu ne kersa nag ci ngëm yàlla la bokk kon benn la ci chambre am yi wala benn la ci étage am yi nga xam ne ci ngay gis ñu tabaxee ko li nga xam ne moo di ngëm lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kersa ku nekk xam na ni jikko muy kersa su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci ngëm la tekkiwul ne kon kersa rek la waaye dëggoon ci muñan ci di sant tey sant yàlla wax nag terme sant moom dafa nekk ci suñu société yi loo xam ne léegi ñu ngi koy foyee waaw ndax boo ne sant sax ñu foog ne leneen la war a doon waaye sant yàlla rek moo ko jago tedd modeste dal jikko yu rafet yooyu nga xam ne buñ ko doon wàññi du jeex yépp boo koy xool dafa nekk loo xam ne kon mooy li daje pour ngëm mën a mat kon yooyu jikko fu ñu dajee ci nit nu mu gën a baree rek nu mu gën a yaatoo mu nekk loo xam ne day dolleeku ci ngëmam day tax ngëm gi mat day tax ngëm gi gën a dëgër waaye tamit day tax li muy séenu ci kanamu boroomam muy bisu penc ak fay yàlla di ko xaare loolu mu nekk lu muy lu xelam di mën a dal ci ne mën na caa jot kon su nit dëgëralee ngëmam na fekk na jikkoom dëgër na jikkoom yi baax na su jikko yi nasaxee rek ngëm dafay daal di nekk lu nasax kon loolu benn firnde la ci muy takke gi islaam takke jikko ak li nga xam ne moo di gëm beneen bi muy dafa takkee moom islaam dafa jëlaat jikko ne moom moo diine bi mu ñëwee dara andi ko lu mottali jikko yi muy tat mii mu makaarimul axlaaq ndekete message yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon jàllale mooy na jikko yi baax moo tax sharia bi mu andi li mu fi masa fekk yonent yi ko jiitu ay mbokkam doon ko andi min la dun aadam ba ci moom tàmbale ci yonent yàlla aadam alayhi salaam ba ci yonent yàlla nuux mi nga xam ne moom la ñuy jox sharia ba yegsi ci moom ñoom ñëpp dañu ñëwoon pour suuxat jikko yu rafet moo tax nag ñi des ci seen ginnaaw lañ ca rompat yàqat ko jaxase ko moom bi mu ñëwee loolu la ñëw pour defaraat ko moo tax moom rek mooy ki yàlla yónni mu nekk yónnent bu matale boo xam ni du pour xeet du pour réew du pour benn langue du pour dafa nekk kaafatan linnaas ngir nit ñëpp ndax dafa ñëw li mboolem yonent yi andi woon luñ ci teggi lu bokkut ak nañ ko santaane woon mu ne leen teggi leen tegaat leen fii nii la kon loolu tax yàlla daf ko yónni ngir mu matal jikko yu rafet yi te loolu la wax comme ni nga xam ne noonu lañ ko ubbee so yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu imam ahmad ak al hakim ba boo demee ci buxaari yi fi adabil mufrad mu wax ne innama bu'ithu li utammima makaarimal axlaaq man mii de dañu maa yónni rek ngir ma mottali jikko yu rafet yi kon bokk na ci yi nga xam ne day tax jikko yi rafet dëgg-dëgg mooy ñu xam àqu yàlla jox ko ko xam àqu jaam yi jox leen ko loolu suñu ko xamee rek incha allah jikko yi daal di nekk loo xam ne day matale kon loolu tax li muy joxe exemple mu ne kersa ndax soo rusee yàlla mooy rus nga def lu yàlla bañ kon rus nga def lu yàlla bañ mooy rus nga tamit nit ñi gis la ci lu ñaaw ndax li yàlla bañ mooy li ñaaw nga rus nit ñi gis ko loolu mooy li yàlla bañ noonu kon ngay ittewoo taxaw ci santaane yàlla yi moytu ay tereem moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu dénk fu ñu toll ne istahyu min allahi xaqal xayaa na ngeen rus yàlla seen kemt lay attan na ngeen rus yàlla na ngeen ko war a rusee bi mu waxee loolu ibnu mas'ud daf ne ya nabi allah inna nastaxyi walhamdulillah ah yow ki yàlla yónni ñun day dañu am nañ kersa wax dëgg ñu ciy sant yàlla qaala yonent bi ne laysa dalik walakin alxayaau min allah xaqul xaqal xayaa an taxfada rasa wa ma awaa nga ruus yàlla ñu ne ah ñun de ruus nañu yàlla suñ kemtalaay kàttan mu ne du lu ngeen ko yaakaare de ruus yàlla dëgg-dëgg na nga ko war a rusee mooy nga fexe ba li sa bopp ëmb lépp nga bàyyi ci xel yàlla bët yeeg bakkan beeg gémmiñ gi nopp yi lépp nga bàyyi ci xel yàlla ba doo ci def lu mu bañ wa taxfadal batna wa ma xawaa nga sàmm biir bi ba doo ci def lu yàlla xaraamal te biir ak lépp lu ciy jaar ci la ngay dundee la ngay lekk la ngay yëg ci sa xol li nekk éléments yi nekk ci sa biir yépp dugg na ci wa tudakkira al mawta wal balwa ngay fàttaliku foo tollu dee ak loraange yi mën a nekk ci dab doomu aadama ak natt yi dee ko xalaat mu ne man araada al axira taraka zinata al xayaati dunia képp ku bëgg àlaxira da nga moytu poñitu àdduna taar yi nekk ci kaw suuf di nax doomu aadama yi ba ñuy sori jaamu yàlla di nga ko daw fa man faala dalika faqad istaxyaa min allahi xaqal xayaa mu ne ku def lii day rus nga yàlla dëgg-dëgg rus mu mel ni incha allah sunu jotaay bii di ñëw dinañu continuer ci tomb yi nga xam ne ba tey moo aju ci place bi islaam jox jikko ju rafet ak dayo bi mu toll ci biir société bi kon ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu dégg ak topp naqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu